askanu Touba mer ba futt lañu def ci cadre yi nga xamé né maître Moussa Diop yëkëti ko directeur Dakar Dem Dikk bile. ni ñu bàyyee nag léegi di wax ni yëf yi la à Touba jël sen comme le centre du monde au Sénégal. parce que référendum def nañ ko fi ñu ñu perte lo Macky Sall fofu ñun ñu gañe fi ñu def législative ñu saboter fofu yàq lepp kenn doxul dara bayé leen ñëpp ñu fa xamni président Macky Sall dafa sa recours. ñu defati légui élection présidentielle Avec lepp luñ ci doon xaar. mu demee nii tey benn envie laa moom ma yeewu ba léegi dem li ji bulldozer dindi Ila Touba bi yóbbu ko Ila Fouta. ñaawlu nañ ko fa ñaawlu yam ñoom askan wile di xamle ni kàddu yi ñu mel moom tegginuwul benn yoon. te séentuwuñu ko woon ci ñoom ñu di ko yëkkati di ko teg ci Touba. Maître Moussa Diop day moom day politique waaye ni muy politique moom euh, njiitu réew mi lay lay yàqal ndax wax jooju su ko waxee communauté bu toll ne mouridisme nga xamante ne dañuy wax ni naan mooy Sénégal moom mu ne du Sénégal loolu wax ju yàqu la. fi defee Ila Touba dafa luñ ko Touba rek Sénégal gépp lañ ko defal ndax Ila Touba yëngu Touba rek dafa fa war a continuer dem kon nag war amul benn kàddu bu ñaaw bu muy def rawatina nag moom jiital ko dara jox ko sunu sunu Sénégal ko jox ko benn cër mu jiite lu mel ni Dakar dem dikk kon waru fee mën a wax kàddu yu ñaaw yi rawatina nag mu koy jëmale ñun waa Touba ñoo yor suñuy carte ñu am droit woote ñoo xool ko ñu neex ñu tànn ko woteel ko kaddu bi mo wax deug yalla kep kuko deg ko ne dang ko ñaawlu ndax kaddu bi da doonul kaddu bu rafet waxantu nak kaddu bu rafet mom waruñu ko jëmele ci kenn waxantu bu ci yoonu murid ndax autoru ila touba bi dafa melni biñ koy defar dañoo japp ne mom wa touba buñ ko defare rek dana tax ñu wotel ñu wotel len te touba wu non ñun mom walum ger dañoo dañoo soxalut luñu way man de defal ñun gëm gëm lan am mom lan yor te mom lañu doxé ay teleg yi du dara sëriñ Touba am na lu ëpp loolu. waaye nag juum na na xam na ne njaati géem ci boppam bu fekkee ne eh, dafa yor réew mii muy Macky Sall jiite ko xam na li mu waaj yoo xam xam na la Macky Sall moom bu ko déggee dana dana ko dana du rafetlu moom dana ñaaw lool ndax lool du wax du waxee daal waxee du waxee nu citoyen sax waxuma laa nag ab république bu toll nii Sénégal gii nga xam ne eh, tarixe yi fi nekk bari na lool. ndax autoroute Ila Touba def nañ ko ba pare mootuñ koo nangu. ilaa Fuuta ak ilaa Podor ak ilaa foo mën a jëm loolu yàq rek la te moom rek moo ci yàqoo ndax fii li fi am képp koo xam ne iñaane nga ko ci sa kaw képp lay këpp Touba kenn mënu koo xañ dara. waaw salaamaaleykum man maa ngi leen di nuyu seen tur ak seen san di leen wax kàddu gi naq naqare ni waaye nag ñun lépp bàyyee nañ ko sëñ Touba ñun lu am rek sëñ Touba ñu ñor waaw xëy na nag xoolama yegg foofu rek. waaye ñun ñun daal ñun ñoo ngi ànd ak sëñ Fallou rek. dégg nañ li mu wax ci Ila Touba bi maanaam ñun moom dañuy maanaam lépp moom dégg nañ ko waaye xanaa kon Macky Sall Ila Touba bi mi ngi ko fiy def ab campagne wala ay électoral moo taxoon mu def ko fi. Cheikh Magueye Top. nan nga gisee kàddu lu njiital Dakar dem dikk nii. maanaam xanaa di ko ñaawlu rek di ko ñaawlu lool ba fa ba fu mu mën a yem ndax maanaam sëñ Touba moom liggéey na loo xam ne. maam ay Ila Touba ak yooyu nun faale wuñ ko nun toppatoo ko sañ tuubaa ba bañ koy bañ koy signé Ila Touba boo booba ca Gabon la maam kooku di wax loolu yi dafa xamadi ku yara di ko te du taalibe te maanaam bu bu fekkoon ne toppante nañ ko moom man nañ ko rey sax te buñ ko reyee du mujj fenn. ndax ko xool euh, raay bi bi ko murid di indi fii boobu yoonu lenn nekkut yoon lu du seen ak jaayante seen diggante sëriñ bi Ila Touba bi tam Serigne Touba saakalu ko boppam ñun ñi saakaluñ ko suñu bopp ñoom ñoo ko fi indil seen bopp ngir lan ngir xam ne seen intérêt ngi ci waaye du intérêt ñun murid seen intérêt la ñoom kon nag bañ koy def kon Serigne Touba ñoom dañoo féeral seen bopp ne bañ koy def Serigne Touba taxut ndax bu fekkoon sëñ bee tax bi élection yi waruñ cee wax sale ca jëm waaye kon ñoom feeñal nañ ñoom bañ koy def la taxoon ñu koy def ngir bëggoon a waa Touba woteel leen ñun nag sëriñ bi lañ àndal. Touba moom du du du moroomu kenn te Touba ni suñ Touba defar na ko aar na ko lépp lu waay man a wax lu mu di doon ci sa kaw rek la waaye Touba moom sëñ Touba defar na ko tur yàqu ma ko li sëñ Bass Abdou Khadir waxoon ne euh, bëri ko la teg sa loxo mu dem tegu sa loxo mu dem kon nag bay ba ñu teg suñu loxo mu dem ñun Touba gëm Touba lañ yaakaar lu am Touba la xam-xam bu dee xam-xam rek mu ti sëñ Touba yi ko ëpp fuuf te wanewuñ maanaam autoroute Ila Touba boobu muy wax après moo gën a jafe fop te jamono ko Touba di am booba yàgg na trop kenn xalaatu na Touba war na koo mën a am te rek moo ko fi indi maanaam sëñ Tuubaa lim liggéeyal yàlla ba yàlla fay ko ko bu mu naqari moom sa nga daara fa dem faatu benn yoon rek te xam ne sax su day gën di yokku. Touba li mu participé ci Sénégal mën na am lu ëpp 1000 apéyages loolu la war a xam ay citoyens ñoo fi dëkk bu ñu far nañu xam ni Macky Sall am na ñu ko wooteel am na ñu ko bëgg ci tuubaa am na ñu ko bëggul. munul fexe nag ba ñëpp bëgg ko. munul nekk yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy ngën gi mbindeef te dafa amoon ñu ko bëgg am ñu ko bañ sëñ Touba mii am na ñu koy diingat am am ñu ko bëgg. kon moom mënut a nekk un seul président bëgg Sénégal yëpp bëgg ko loolu bu ko bëggee day sonal boppam munul nekk